côté a nôtres Oui, mais, mais vous savez, hein, euh, les gens Je pense que le président de la République a été clair. Il a reçu donc, le président Obama et je pense que clairement il lui a dit que notre pays, en tout cas tant que je serai président de la République, il est hors de question de légaliser l'homosexualité. Je pense que de ce point de vue, c'est clair. Et au Sénégal, il y a deux religions révélées les plus importantes. C'est donc... Euh, l'islam et le christianisme, et ces deux religions rejettent systématiquement l'homosexualité. Donc au Sénégal, le Sénégal est un pays de religieux, de croyants, il ne sera jamais question de légaliser l'homosexualité. Maintenant, naturellement, il y a des lobbies qui, qui, qui, qui poussent tous les gens à y aller, mais le président de la République est de façon intransigeante. Je pense que, en tout cas, durant son mandat, durant ses mandats, Je pense qu'on ne parle pas d'homosexualité. Maintenant, autour de nous, c'est sûr que les gens vont continuer à jaser. Mais euh, Le vote des militaires et paramilitaires s'est tenu euh, le week de participation. que vous ne craignez euh, s'explique aisément. J'ai la chance de savoir exactement ce qui se passe à ce niveau. Les militaires sénégalais sont aujourd'hui près de 4000 en dehors du territoire national. Vous êtes d'accord avec nous Il y a près de 10 000 militaires en Casamance qui n'ont pas voté parce qu'ils ont quitté leur base. Il y a aussi le fait que beaucoup de militaires sont partis à la retraite, qui n'ont pas eu le temps de s'inscrire. Il y a aussi, entre autres, le fait qu'il n'y ait pas eu de révision depuis donc, 2006 au niveau des forces armées. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait n'est-ce pas, une faible participation. Il faut y ajouter le fait que lors des JMJ, un certain nombre de militaires aussi étaient en déplacement dans le territoire national. Je pense que ça n'a rien à voir. Moi, je vis avec les militaires, je, je n'en dirai pas plus. Mais je sais qu'ils ne sont pas mécontents du travail que Monsieur le Président de la République est en train de faire. Je pense qu'il y a eu des avantages énormes en direction des militaires. Je pense que tous ceux qui ont des parents militaires peuvent demander. Je pense qu'ils sont satisfaits de tout ce que le président fait pour donc, les forces armées, à commencer par les, tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui sont décédés. Je pense qu'il y a des choses très importantes qui ont été faites et qu'il n'y a pas de péril en la demeure. Monsieur le euh, euh, commune ngir wax nga waaw yéen lay c'est-à-dire que euh, balaa loolu sax dama ñëw euh, fekk euh, yow dégg ngeen nit ñi la plupart xam nañu sax quinze points yi parce que am na ay xale yu jàng indépendamment de ça wax nañu ko ci olof donc nit ñi xam nañu luy quinze points de réforme mais boo ma laajee ñaari point man xam naa ni ñun ñi nga xam ne ay kaw-kaw lañu ñun tool moo ñu saf. tool la ñu am moom la ñuy jëfandikoo moo tax ñu am li ñu am donc euh, point boobu liñ ci wax ci domaine foncier nga xam ni boo amee sa suuf am alal bu nekk ci biir nga am ci loolu amuloon Sénégal bu njëkk bu ñu gisee trésor moo xam or la moo xam euh, diamant moo xam phosphate bu ñu ko xesee gis sa suuf dañu koy ñàkk yow dootoo fa dugg te tey léegi boo ko amee yow di nga ci am wàll loolu mi ngi doog a am léegi boo amee sa tool aussi mën nga léegi boo amee say kayit nga dem mën cee def prêt loolu amuloon bu njëkk donc pour wax ni raison boobu mooy raison fondamentale bi nga xam ni dafa concerner directement le paysans mais toutes les autres raisons concernent et les paysans et les citadins euh, euh, vous pouvez prendre par exemple la réduction du mandat euh, réduction mandat bi mandat bi donc juróom-ñaari at la woon moom la ñu woote moom la sénégalais yëpp d'accordoon ñu woote ko président la république bëgg ko wàññee mais waa conseil constitutionnel bi nga xam ni moom moo ni dafay protéger constitution c'est le gardien de la constitution président ci boppam nee na man dinaa aar constitution bi dinaa fexe ba bépp sénégalais donc respecté ko kooku xam nga mënul nangu conseil constitutionnel wax ko ni yow mënoo wàññi sa mandat mu mandi mu wàññi ko d'autant plus que Sénégal bi mu amee ba léegi depuis 1960 benn président de la république mësul donc contredire conseil constitutionnel léegi nag. président dugal na ci ci réforme bi juróom-ñaari juróomi at yi juróomi yi moom bu defee juróom-ñaari at beneen mandat bi juróom la sénégalais bu ñu ko wóoree bu ñu ko wóoloo juróom lay doon mu yokk ci ni sama mandat bi ci ñaari mandat yi nga xam ni képp ku falu Sénégal ñaari ngay am mu boole ci juróom-ñaari bii muy ñaar muy fukk ak juróom-ñaari mandat mu dem bu demee keneen ñëw am naa yaakaar ni loolu aussi lu am solo li mu aussi donc assemblée national Euh, contrôle de le au niveau des des ministères yaakaar naa loolu am solo président assemblée nationale aussi mën a jël donc ñaari euh, membre au niveau du conseil constitutionnel yaakaar naa loolu aussi lu am solo parce que président rek moo ko amoon doon jël euh, doon jël juróom yi léegi juróom-ñaar lay doon donc mu yokk ci ñaar yooyu donc am naa yaakaar ni vraiment am na ay moo xam le l'opposition opposition bi. dina dina mën a am am gëdd am chef de l' opposition mu am statut donc loolu aussi lu am solo la parti yi aussi n'est-ce pas ñu jox leen gëdd parti de l' parce que loolu moo indi jàmm ci réew te ñun ñu ngi xeeb jàmm ji ñu am Sénégal mais nañ def attention sénégalais yi war nañu seetaat seen bopp parce que jàmm pour mu am il foog ñu mën a jàmmoo te loolu lu am solo la point point yooyu yëpp fay na am na solo ci euh, euh, xam ne dañu jàpp ne euh, xam nga xam nga xam nga addina noonu la am na ñoo xam ni fi mu ne nii dañoo bëgg rek président Macky joge jóge fi ñu toog ñu ni président est incompétent ak mon pays ak yooyu yëpp ay wax la Sénégal ñun ñoo ko moomandoo ce n'est pas le du du du benn nit réewu Sénégal ñun ñoo ko moomandoo. loolu amul dara lu ci laxasu président Obama ñëw na fii président Macky Sall ne ko homosexualité ñun xamuñu ko moo xam chrétien bi moo xam musulman bi nanguwuñu homosexualité donc du fi am mukk ci àddina en tout cas tant que président mi ngi fi. vote militaire yi tamit a ah, ñi ñi participer dañoo tuuti est que jàppoo bi dina demee noonu. non vote civil bi mënul demee noonu yow li nga gis am naa yaakaar ni fii yaakaar naa du 10 pour cent mooy voté. li nga fi gis tey ak ak ak fépp fi ñu jaar donc euh, pour wax ni votu militaire yi militaire yi am na militaire yu bare ñoo xam ne ñi ngi bitim réew ñeenti junni militaire ñi ngi bitim réew am na ay militaires yu nekk Casamance am na militaire yoo xam ni aussi dañu nekkoon en déplacement pour GMG yi am na parce que duñu leen bàyyi bàyyi sécurité par exemple ñi ànd ak man ñaari militaire la ñu voté wuñu parce que dañu nekk ak ministre bi xanaa duñu ma bàyyi pour dem voté ji donc ñooñu yëpp voté voté wuñu ak ñeneen ñi nga xam ni euh, donc jotuñoo am kayit parce que depuis 2006 defuñu révision au niveau des forces armées donc ñooñu amuñu kayit voté wuñu donc pour wax leen ni kii amul benn problème parce que soldat si yaakaar naa président defal na leen lu rëy bu bu la neexee nga dem laaj leen anonymat parce que xam nga du ñu wax c'est la mire du ñu wax mais dina wax ni président li mu leen defal am nañ ci kontaan am nañu yaakaar ni li leen président dénk mooy. sécurité Sénégal ñu ngi koy jàpp bu ba a maa ngi leen di gërëm di leen sant.